waaw c'est une euh, chanson boo xam ne Cheikh moo ko bind. xam nga Cheikh il écrit bien man moomu dàq bind ah. bind parce que concentration moom quand il écrit il rime il rime d'une façon boo xam ne très poétique parce que ce li mu bind ci biir mooy euh, jàmm ñun ñu ko gën a soxla mala malaaka malaaka ak rabu géej. ñun ñoo ko gën a soxla. Mm-hmm. parce que ñooñu ñooñu gën gën ñu ñoo soxla jàmm. ñun ñu ko gën a soxla mala malaka ak jinne ak rabi géej gi. Mm-hmm. ñu ngi lay ñaan ci ay ñaan jàmm yow mi yàlla yow mooy ñu borom jàmm parce que dafa nekk ci contexte boo xam ne instant bi bon chanson bi sax du tey lañu ko bind. Mm-hmm. mais dafa ñëwaat. parce que contexte actuel yooyu bi boo xoolee dans le monde te on parle. d'abord on parlait avant-hier de l'Ukraine de la et la Russie affaire bi tracé tarxis ñëw ci euh, Gaza ci Israël ak ak Palestine encore mm-hmm. quelque chose qui s'est réveillé te ce qui se passe c'est déplorable en même temps boo xoolee boo dégloo début morso bi dañoo jël la situation bi nga xam ne les bruits sonores euh, boo xam ne euh, bu ñu doon avertir ci nga xam ne euh, moo doon xew fii au Sénégal durant les émeutes yi doon am nga dégg nit ñi di yuuxu di wax eh bàyyi kii sama yaay la kii nga dé euh, nga dégg grenade lacrymogène yi pour dire ko aussi ñun. en mhm. commençant pour nous on a besoin de jàmm. parce que rien ne peut se faire sans la stabilité sociale. rien ne peut se faire devant. chaque mhm. chacun de nous doit y œuvrer pour qu'on puisse quand même dans la stabilité réussir quelque chose. c'est bon il faut mener les combats les combats de liberté c'est bon les donc combats pour la démocratie tant qu'on ne le mène pas ça pas aboutir mais c'est-à-dire que pour ñun on se dit que c'est dans la stabilité donc c'est pas dans l'anarchie quoi mm -hmm. tu les combats de la liberté c'est partout D'accord. la liberté ça ça ne c'est un combat qui se mais dans dans l'ordre quoi pas dans le désordre